Eh, jërë ngeen jëf mbokki internet Firi Info tey nag ñu ngi fii ci poste santé urbain 1 nekk si Diamaguène eh, ngir amal benn waxtaan ci diggante yi nga xam ne nag eh, mooy madame Diallo ak Euh, collaboratrice bin fi fekk ngir benn programme boo xam ne war nañ ko am niki le 30 euh, octobre mu jëm ci euh, octobre rose kon duñ def rek lu dul bàyyi ko mu présenté wu mbokki internet u Info ñu jóg jublu ci waxtaan bi kon madame Diallo ñu bàyyi na nga présenté wu mbokki internet yi. salaamaaleykum waa mbokki internet maa ngi tudd madame Diallo Kadijatou Balde di charge femme poste de santé urbain 1. Mhm. tey dañoo ñëwoon pour waxtaan si ci wàllum octobre rose. Mhm. octobre rose dafa nekk weer boo xamante dañ dañu koo jagleel jigéen ñi. Mhm. pour xeex. cancer cancer cancer cancer des seins ak cancer du col de l'utérus mhm. té mo taxoon ñu ñu free ñu ñu information yi mhm. Wa, cancer du sein mhm. euh dafa bari nu muy nu ci ci nit ki euh, soit euh, ku jigen ki su sont ay wénam di sont ndox wala qui euh, mu am ay donju wala ila mu qui aspect peau d'orange comme nit orange mel Euh, ween bi mel noonu mhm. loolu yëpp signe signe kii la euh, signe cancer la mhm. wala ilaa mu am ay ganglion mhm. ci kii bi ci pokkotaane mu am ay mu am ay donju loolu yëpp signe Mhm. can cancer la mhm. wala ilaa des fois mu mu am benn rougeur mhm. wala endurcissement mu mel ni lu diis ween bi diis loolu yëpp signe cancer du col la loolu ku ko gis rek war naa ñëw ci poste de santé wu mu mu mu dépisté wu euh, cancer di col nag loolu lu muy manifesté woo ci jigéen ki mooy des fois kanamam day xasan di xasan lool muy génnee ndox ndox bu xeeñ wala genre dëtt wala des fois muy faral di gis euh, deret deret boo xamante ne bokkul ak reeglu bu mu daan gis. Mhm. loolu tamit signe cancer la. Mhm. wala des fois bas ventre bi naq bi di metti wàcc ci tànk yi. Mhm. jàpp ndigg li. loolu yëpp su ko defee bu ko nit ki ko gisee war na ñëw dépister précocement. fii ci hôpital bu ndaw bi le 30 octobre incha allah. dañ koo jagleel jigéen ñi. waaw te feebar bi dafa nekk feebar boo xamante ne feebar bu buy buy rey la. bu la bu la. boo ko teelee kii dépisté mhm. ñun am nañ ay kii yoo xamante ne mhm. euh, dañ dañ koy faj ba du mhm. yegg yenn stades yi parce que am na ay dañuy am mammographie day am fi day amaale aussi col euh, kii bi euh, terme thermocoagulation bi dañ koy indiwaale loolu yëpp c'est gratuit bu ñu ko gisee ci nit ki dañ la koy fajal teel fekke du egg stade cancer ba nga xamante ne dañ ciy dépenser ay millions ba pare du la tere da ngay ñàkk sa bakkan mm-hmm. loolu lan lan la ñu waxoon daal ñu woo ñaax jigéen ñëpp mm-hmm. ak xale yi nga xamante ne dañoo tollu ci sëy mm-hmm. ñu toll ci fukki at ak juróom-ñett ba juróom fukki at ak juróom juróom ñoom ñëpp war jigéen ñooñu war nañoo ñëw ñu dépisté wu précocement nday amaale it don de sang mhm. maanaam dañuy maye deret mhm. te xam ngeen ne jigéen ñi léegi dañoo soxla deret mhm. bu ñuy am doom dañuy dañuy xëpp deret te bu ñu deret kenn du ko jaay dañ dañ koy maye euh, loolu tamit dañ day am dañ amaale don de sang Marie Stopes tamit day ñëw fii ci hôpital bi maye planification familiale maye planning bi loolu tamit dañ ko fiy defaale dañuy defaale aussi traitement des IST tépp koo xamante ne aussi gis na kanamam di xasan wala muy génnee ndox bu xeeñ mm-hmm. loolu tamit Marie Stopes da koy jël en charge dañ lay faj dañ lay dépister gratuitement mm-hmm. euh, joxaale ay garab ñu faj la mm-hmm. day am aussi euh, kii prévention contre le cancer du col mhm. maanaam vaccination bu ñuy defar xale jigéen ñi nga mhm. xamante ne dañoo toll ci ñeenti fukki at ba fukki at ak juróom ñeent mhm. loolu tamit day amaale fii le trente incha allah fii ci hôpital ba bi euh, nekk ci wetu marché bi waaw maa ngi leen di jaajëfal

ñaari ween yi lay jàpp mm-hmm. comme ku gis weenam di diis wala weenam am donju mm-hmm. wala ween bi am aspect peau d'orange maanaam lu mel ni orange nu mu mel mm-hmm. ween bi mel noonu wala des fois ween bi di xel dëtt wala di xelli euh, meew loolu yépp signe signe kii bi la signe cancer des mhm. seins mhm. cancer du col moom mbutitu njurukaay gi lay jàpp lay jàpp mhm. njurukaay gi ci lay jàpp waaw lan lan moo koy waral lan mooy waral loolu moom euh, loolu mën am des fois lu koy waral mooy multipartenariat sexuel maanaam jigéen ñu nga xamante ne euh, yemuñu benn place maanaam dañuy xam nga rek dañuy déplacé wu de trop voilà loolu la te am même infection yu bari yooyu tamit da koy faral di joxe. Mhm. comme li ma la wax xasan xasan bi. Mhm. wala sa kanamam di génnee ndox bu xeeñ. Mhm. wala di génnee dëtt. loolu yépp day indi signe cancer du col la. mais buñ buñ ko teelee xam ba bu ñu ñëw ci moom nañ ko traité. wala bu fekkee ñoom ñëw nañ def journée bi def nañ traitement euh, dépistage bi. Mhm. yàlla trait am ñoo xam ne am nañ ko ban accompagnement ngeen pare pour defal leen ko ba tey ji feebar boobu mën a dañ si ñoom définitivement. waaw bu fekkee ne traité nañ ko gis nañ ku jigéen ki. Mhm. am na les lésions précancéreuses. Mhm. dañu dañu am suñu suñu machine thermocoagulation. dañ ko koy defaral ci saa si ñu faj ko. ñu jox ko suivi. après day am suivi. Mhm. mais fekkente ne nag dépisté nañ la. Mhm. gis nañ xamante ne yow cancer bi commencé euh, dafa commencé si yow. Mhm. Euh, mënatuñ koo faj fii dañ lay référé Kaolack. nga def fa ay frottis sanguin def fa yeneen analyse yoo xamante ne dafa cher. mais euh, buñ ko teelee dépisté loolu yëpp du ko du ko du. loolu yëpp du ko fay du ko du ko fay. kon daal loolu am solo la. Mm-hmm. Eh, tey jii ban ban message ngay lancé sa mbokk jigéen ñi bala ñoo jox madame ban message nga leen di wax journée la 30 boobu nga xam yéen a ngi koy waajal fii ci poste urbain 1 jàkkaaroo ko case des tout petits jàmbagan watu terrain basket ban message ngay lancé ngir journée boobu mbokk jigéen ñi def mobilisation bu réussite ngeen mën a ñëw si dépistage boobu waaw dañuy ñaax jigéen yépp xale jigéen yi suñu yaay yi mhm. jéeg yu ndaw ji ñun mhm. ñëpp ñu ñëw dépisté wu mhm. ñu ñëw ci hôpital bu ndaw bi fii hôpital ba ci post de santé urbain euh, bu nekk jàmm gën ci wetu marché bi ñu ñëw dépisté wu précocement parce que dépistage précoce moo lay aar ci feebar bi ñu ngi ñaax ñëpp nañ ñëw dépisté wu dépistage bi c'est gratuit traitement bi aussi c'est gratuit ñu ngi ñaax ñëpp ñu ñëw ñu dépisté wu maa ngi leen di jaajëfal merci beaucoup joxal kii madame. Euh, gannaaw bi la nuyoo rek ñu bàyyi la nga présenté woo mbokki internetu Firi Info wax ca tur ak. Euh, asalaamaaleykum. Mhm. mbokki internet Firi Info. Mhm. man la madame Sistre Sambou sage-femme poste urbain 1. Mhm. gannaaw bi ñu waxee ak madame Diallo ñu jëm ci journée bu am solo. Euh, jëmale ko ci wàllu dépistage euh, cancer du sein cancer du euh, du sein ban message ngay lancé à l'endroit sa mbokk jigéen ñi gannaaw bi nga xamee ne yow jeune nga comme sa mbokk jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci département bi ak ci fépp rek ban message ngay lancé pour journée boobu mën a réussir à 100 pour cent. maa ngi wax ñëpp ñu mobiliser wu. Mhm. ko seen yëf. Mhm. waaw borom kër yi nañu wax seen jabar yi ñu ñëw. Mhm. seen cousine yi seen ñes yi na ñëpp ñëw. parce que cancer bi amul kii rek lay dal ñëpp lay dal. parce que bañ nañ ko cancer du sein et du mhm. loolu jigéen rek moo koy am. Mhm. jigéen mooy yaay. Mhm. mooy cousine. mooy lépp. moo bu ñu ñëwee. fii nii sage-femme Koungheul yëpp. département Koungheul sage-femme yëpp nañ mobiliser wu le 30 incha ñëw fii bu ñu ñëwee amul kenn dafa fees du ñu faj ñëpp la ñuy faj. teel a ñëw ñëw dépisté wu à temps dellu cinq kër incha allah. yow ngay ndaw sa moromu jeeg yu ndaw yi. ñoo xam ne tamit wax dëgg yàlla ñëpp si leen bokk tey ji yow ban taxawaay ngay def ngir gën a sa mbokk ndaw yi jigéen ñi journée boobu ñu ñëw défitage ndax yaakaar naa ne bu fekkee am na leeral tuuti amul âge. Mhm. feebar bi amul âge. feebar amul âge. Mhm. ku nekk ku dugg si sëy rek. Mhm. war nga kaa mën na ñëw dépisté wu. te du question sëy kese sax am na ñi nga xam ne amuñu jëkkër. te am nañu activité sexuelle. ñooñu war nañu mën a ñëw kon sànq li la mhm. amul carrément. un mhm. facteur de risque la am. Mhm. mooy âge de kii di premier rapport bu teelee. multipartenariat. mauvaise hygiène de vie yooyu moo koy ay jigéen tabagisme yooyu. ñoo favoriser. loolu moo tax ñëpp ku même xale yi ndaw yi am juróom at ba fukki at ak ñeent ñoom dinañ réserver vaccination ñoom bu ñu dinañ leen bi pour protéger leen contre cancer

jël jël la te du fay bi du cher du am sa fay bu pré cancéreuse la bo né ba mu nekk cancer nak ci ngay sonu mhm. dépenser 1 million mhm. sonu sa wa kër mais bu mhm. dépisté à temps dina baax inshallah allah euh, gannaaw nga nekk ndaw en matière de santé mom amul xale amul mag tey ji am na mag ñoo xam ne tey danaan la hôpital bi léegi ay sama moroomu doom laa fay fekk léegi yow ban message fort nga mën a lancer en cette femme yooyu nga am ñoo xam ne ñu ngi am xalaat boobu ngir ñu mën a ñëw xam ndax santé moom amul mag amul ndaw ndaw gannaaw liggéey bi nga nekk di jeune danga koo jàng ba nekk fi kon tey jii mag ñi nga xam ne tey ñu ngi naan du ñëw def ko ndax samay moroomu doom noonu lan nga leen di wax exactement santé amul ndaw parce que ñu dañoo jàng ba am suñu diplôme bu ñu ñëwee dañ leen traité comme suñu yaay hmm. discrétion dina am confidentialité dina am du ñëw ñu ne la kii nii lii la am mhm. même nga àndaloon ak kenn mu laajte ñu ko sax duñu ko wax mhm. dañuy ñëw jël la ci sutura mhm. faj la parce que suñu yaay nga nañ la taxaw li nga la war a taxaw amul ruus boo ñëwee wax foofu lay jëm ci bureau bi li nga bëgg a wax nañ la ko wax fajal la ko conseiller la ne la lii boo ko defee éviter boo dundee nii doo am lii loolu bu si kenn am ay ruus di ñëw di wax parce que sa feebar soo ko wax lee kenn du xam li nga koy fajee jàngoro boo ko moo lay sonal boo ñëwee dinañ la faj te ñun ñi sage femme li ñu nekkee ay ndaw tamit am nañu suñuy ancienne dinañ ñëwaale ci journée bi mhm. boo nekkee nekkoo à l'aise ak ñun dinañu la boole suñu yeneen yaay ta ami si la ma ngi fii ta uli mhm. dinañ la boole nga nekk à nga exprimer wu mhm. du ñun nga gannaaw bala ñu ñëw si madame tëj ban message ngay lancé

bu feebar jël la en charge mm-hmm. incha allah. merci beaucoup madame Diallo bala ñoo tëj rek ñu laaj la benn question. Mm-hmm. Euh, jëm ci li nga xam ne mooy programme euh, journée bi tey lan ban programme nga mën a wax ci journée bi nga xam ne tey ban heure lay tàmbale. du ndax xam naa ni amul heure bu muy jeex ndax fekk maladie ñu ngi fi du am mm-hmm. ban heure ngeen di war a tàmbalee programme bi journée la trente bi. waa 9h la ñuy tàmmale. Mhm. sage femme yu nekk ci gox Koungheul yëpp. Mhm. bay ñëw mobiliser wu. Mhm. pour jàppale population bi. 9h la ñuy tàmmale. amoon nag heure bu muy jeex. dañuy faj ba maladie jeex. parce que ñun euh, askan wi moo moo ñu ñor. ñoom ñoo ñoom ñoo ñu taaj fii ñoom ñoo ñu ñor. waaw léegi ñu ngi ñaax ñëpp nag na ñëpp ñëw dépisté wu. dépistation en masse la ñu wax. na ñëpp ñëw dépisté wu à temps. le 30 incha allah. tey ji question bi nu posé euh, Guira lan lay posé waat ban message fort ngay lancé jigéen ñi nga xam ne tey ñu ngi wax ci wàllu santé boo demee post ba wala nga dem hôpital sama moromu doom koy fekk ban message nga leen lancé ngir ñu mën a bàyyi xel yooyu génn seen mentalité yi ngir ñu ñëw saytu seen wàllu santé. waaw message bi may lancé mooy ñun dañoo jàng. Mhm. dañoo jàng ba am suñu diplôme. Mhm. te am na loo xamante ne euh, def nañ ko suñu suñu bopp bi. Mhm. maanaam euh, respecter nit ki la respect avant tout ak accueil bi aussi. ci la bokk accueil bi surtout. ñu ne ku ñëw fii dañ lay dalal. ci sutura lépp lu ñu mënti wax. ci kii bi ci bureau bi lay des yow tant que moom nit ki génnewu ko yóbbu ko ci mbedd bi mhm. ñun amuñu droit ñun duñ ko génnee ci ci biti parce que ñun jàng nañ ko mhm. euh, loo loolu noonu la ñuy jëfee mhm. ñu ngi ñaax ñëpp suñu yaay yi suñu mag yi euh, suñu goro yi suñu raq yi euh, suñu morom yi nañ ñëw dépisté wu santé amul amul kii xale la kii mag la mm-hmm. expérience la. exactement xam na am nañ expérience bi jàng nañ ko. Mm-hmm. Euh, vivre nañ ko. exactement uh-huh. ñu ngi leen di jaajëfal baax mbokki internet yi kon programme boobu mooy nekk le 30 octobre fii ci poste 61 kon ma dem Diallo ñu bàyyi rek nga tàgg ak mbokki internet Firi Info. waa maa ngi ñaax ñëpp maa ngi remercier waa Free Info mm-hmm. ci déplacement bu ñu déplacé wu ñëw ba ci post bi fii di ñu defar émission maa ngi leen di remercier di leen sant di leen gërëm. jërë jëf. merci beaucoup.